tabe ko xam ne way jëkk ak way mujj kenn mësu koo def yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci mangi xawaasin nag ci la taxaw xeefar yi ko doon kontar ñi ko gënoon a bañ ku taxaw rek mu may la téeméeri gélém ñaar téeméeri gélém ñetti téeméeri gélém juróomi téeméeri gélém lan saar daje nag xale yi ne waaye yonent bi yàlla ko yàlla ba bakkaatam li muy def ah yonent bi xeefar yi nga xam ne bokkam yi nga xam ne barki démb rek ñu ngi xeex ak ñoom seen deret yaa ngi taq ci suñu jaas yi ba léegi xaral ci ñoom mu di leen ko séddale wàcc ñëw ah yonent bi daal lii muy def kenn xam ko yonent daal di woote nag ne lansaar nañ daje ci benn tant ni ma fa ñu daje mu ñëw mu ne leen lu ngeen wax mag ñi ko ñun mag ñi day waxuñ dara waaye xale yi day wax dëgg wax nañ ne yonent yàlla na ko yàlla baal mi ngi fam xaral ji jox mbokkam mi te seen deret yaa ngi tax ci suñ jaas yi setagut sax mu ne leen ndax mu leen nit ñi yóbbu gàtt yee gëlëm yi yéen ngeen yóbbu yonent yàlla ah ñu ne ah kay mu ne leen yéen moom sama dund yéen moom sama dee kon nag bàyyi leen nit ñi ñëw ñu yóbbu gàtt yee gëlëm yi yéen ngeen yóbbu ma de gën leen ko da ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga na ne gis nañ ko yéen ngeen yóbbu ma de gën a lee gisagu leen ko dangeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko waaye muñuñ de bi buri ñëwee gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu lañ soog a gis gën a lee xam na ne yonent moom xamul gën du def lu mooy lu ko yàlla digal de fatana sa sellalul xisaati yi ci jëmam maanee ki maanaam na nga féexlu léegi nag ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci maanaa yaaji ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa ci déglu sama way wi na nga déglu rek li Busiri wax ban léegi nga mën a féexlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le inaa sa ndem jafe na ijtilaaw nag feeñ mi naa ci jëmm ja su fekkee jëmmi yonent ja feeñu la nga janoog moom fiixal ci sa bakkan loolu jafe na la déglu lii may wax te lu kullu wasfin bépp melo ibtadaata bu tàmbali nga bii ci moom al wasfu matal al wasfu melo bépp melo boo xam ne moom nga tàmbalee ne yaa ngi koy taggee yonante ne tàmbalee mbaay istaw abamatal axbaaral fadli soloy ngëneel ibtidaaw tàmbali ga de la nga tàmbalee rek dafay jeexal mboolem xeeti ngëneel de yaa ngi bëgg a tagg yonant ne lii laay tàmbalee boo tàmbalee rek sooy ba la nga jëkk a wax rek jeexal na mboolem yi ngëneel de lu ñu tàmbalee woon dërtu bi tey ne naka la kenn xéegut sa xéeg mboolem yonant yëpp xéeguñu xéeg yi yonant bi xéeg ci saa rek baatin waaye sayidun sanga la bax ko rayam tabasumu muñ la waaye yonant yàlla ni meloon boo ko bëggee xam nit la woon koo xam ne mës da ree ba kekku nga dégg baatam déedéet muuñ rek sallallahu alayhi wa sallam wal masi dox alfu way naa ndànk yonentu mës da yàkkamti ba waaxu wala mu daw mës da ragal itam ba yàkkamti mbaa mu daw de dox ndànk rek ndax du yàq ndax du xemeem du ragal moom moo tax ba kenn mës da gis yonentu sallallahu alayhi wa sallam muy waaxu de wana woo nelawam ixfaaw nga mentu la yonentu tëdd gànjang di nelaw kenn mësu koo gis de boo ko bëggee jis muy nelaw gis muy nelaw boo bëggee gis muy jaamu yàlla gis ko muy jaamu yàlla de nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti waaye nelaw ba ne xañang kenn musu koo gis ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu sëri waroon na balaa agsi foofu nag mu jëkk ñu wan na jëm yonent ba mel sallallahu alayhi wa sallam nu yonent meloon jëmm la woon joo xam ne dafa digg mu taxawaay duut njool duut ndaama mi ngi ci diggante njool ak ndaama sallallahu alayhi wa sallam su loolu su taxawee moom rek ci koy xam waaye nag su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen de loolu moom martaba baa ko ko may waaye daal su fekkee nag ni beru na nga xam ne rek kii du njool du ndaama de gudd xayibalu ko gàtt xayibalu ko ma nga ca diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku weex la weex koo xam ne dafa ànd a xonq loolu lu ko waral yaaram nit ña teeru weex rek mooy taar fi ñoom ña dëkk ca kaw ga xonq mooy taar fi ñoom de yonent mi ñu bëgg nag mu rafet ci ñooñ teeroog ñooñ kaw ñëpp moo tax dafa weex ba noppi waaw weex goo xam ne dafa xaw a jëm ci xonq de waaye loolu nag ci cëram yi nga xam ne ñooy feeñ ci jant bi nga koy xamee de nga xam ne jant bi dina ko laal ak ngelaw li waaye su summeekoo nag yaram nga xam ne moo ne ca biir maraan yi nag kooku moom dafa weex tàll mel ni xeetu xaalis de sallallahu alayhi wa sallam bi nag boppam dafa rëyoon kawaram dafa sëqoon sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rëy ay dañoo saq ay xefam dañoo sëq ba kanam dafa gu gémmiñam dafa yaa ay bañam dañoo sew bu ree fay mel ni melax mooy melax waaw wala yuur yuur goo xam ne tey dafay taw de dafa gudd ay loxo gudd ay tànk waaw maanaam dafa joti cër dënnam dafa yaawoon waaw dafa amoon sikkim waaw bu sëq waaw ak i faas sallallahu alayhi wa dënnam dafa jàppaloo kawar ba ca waaw ba ci jumba xam ne ku dijj yaxi waaw yaxi loxo la ak yaxi tànk loolu mooy melaw jëmm ja su meloo noonu ba noppi nag nga wax ne reexam muuñ rek la doxam dafay dox ndànk nelawam nga mentu la leen meloom daanañ ko melal indi Abu Hurayrata daana ko melal Sidna Ali ibn Abi Talib daana ko melal Abu Hurayrata daana ko melal de waaye doy ci rek la jabaram wax yonent ndeyaan sa ta na ne ku rafete ni sama bët mësu koo gise ku mate ni yow jigéen mësu koo judde ne su fekkoon ni jigéen ñe jigéeni salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon yusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonant mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog da yonant gën a rafet fuufu yusufa de inde abu haalata daana ko melal sidna ali ibn abi taalib daana ko melal abu hurayrata daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonant ndayaay sa ta way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gis de ku mate ni yow jigéen mësu koo judde ne su fekkoon ni jigéen ña jigéen jigéeni salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon yusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonant mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog de yonant gën a rafet foofu yusufa de yusufa li muy taaroo yépp yonant ko gën a rafet sallallahu alayhi wa sallam waaye yusufa nag soo gisoon jigéen ñi di nattuwu ci moom be di dogu ci moom di fitnawu ci moom moom dafa taaru woon rek yonent nag moom dafa taaru ba noppi màgg boole ca soo ko gisee da koy ragal ragal ragal ba nga xam ne boo dee jigéen sax doo ko ñemee nopp soo jaxasoo moom nag gis moo gën a xoyof mboolem mbindeef yàlla yi de nit daana ko rek di karkar yi lox mu a xoyofalal man du ma dara lu benn waaye laa boo xam ne as njigéen a ma jur rek ci makka njigéen su daa lekk ay seer rek waaw Aminatu mooy sama yaay du ma dara du ma buur duma dara de boo ko gisee tambalee gis da koy ragal boo jaxasoo moom nag dootoo bëgg a tàggoo moom ngi waaw jikko ju rafet ja de kooku le mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak nag lépp ngëneel loo xam ne mas naa wàcc ci mbindeef yi dale ca aadama ba fi tey rek xaaj la ci ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ku am ngëneel rek ci moom nga ko abbee waaye ngëneel mooy jëmmi mooy jëmm ji nga xam ne moom boole mbooleem ngëneel yi de Adama ci moom la jëlee Noohun ci moom la jëlee Ibrahima ci moom la jëlee Muusa ibnu Imrana ci moom la jëlee Isa ibnu Maryama noonu ñi ñëw gannaaw nag waxi noppi ñépp moo leen xabal sallallahu alayhi wa moo tax ba mu ñëwee dootoo gis ab yonent de warof ne borom tubéy bu jàngoo sol ba mu ñëwee ba tey day ab yonent wàcce tudde ndax moo leen doon xebal ba nga xamee ne ñëwal na boppam nag kooku sotti na de mu nettali moom waykat bi ne sànni na jàmbaraaye ténqam ba mu fees ak jàmbaraaye sànni na ko daq ci xare boo xam ne junne lañ de ana luy xeetu Muusa ana luy sànni Muusa Muusa ibnu Imraan amoon na xeet boo xam ne yàlla def ko ca defal ay kawteef Muusa ibnu Imraan ab sàmm la woon jabaram jiñ ko may ca Madiyan ca Madiyan fukki at la sàmm mu dik canam waaye càmm nga yomboon na lool bu demee ba ca àll ba rek mu fakk tëdd nelaw xet wa soppeeku sàmm di sàmm jur ga ba jëfal si ko de bu ñëwee ci teen yoor xet bopp ba nekk baag da ca des nepp nekk goj mu duy de guddee bu sampee xet ci néegam mu taal mu nekk làmp di takk ba bët set di ko leeralal néegam waaye xeetu Muusa oo gannaaw gal moom la ko yàlla jox bu ko sànnee mu nekk jaani ñangoor bu ko jàppaatee mu dellu nekk aw xet de xetam woowu kay na kéemtaan waaye lu ko dendaleeg jambaraa ji yonent bi sani nag jambaraa ji yonent téye muy sabal ba ñëpp di ko dégg mu sànni ko dàq ci xare boo xam ne ay junne lañ kooku moo gën a xeemu xeetu Moussa wa de sallallahu alayhi wa sallam xeetu Moussa rek yàlla di ko dundal ay jamono muy nekk ñangoor ay jamono mu delloo ko mu nekkaat xeet jambaraa yi nga xam nag ne moom dekkaluñ ko defuñ ko dara jambaraay kese la ñëpp ngi janoog moom mun naa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al ñëpp di dégg <coughs> loolu day moo a xeemu <coughs> xareb Badar yonent def na loolu xareb uut ak Hunayn yëpp def na loolu xareb uut yonent def na loolu ak xareb Hunayn de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na nit ñi ci atam bekkoor ba nga xamee atam bekkoor na leen ca bekkooram yu métti de yonent ba mu gàddaayee dem Medina taw bi dafa dafa yéex ñàkk dikk ba am ay at ba nga xam ne suuf si dafa fëndant ba mel ni ab doom muy xutba ci jumaa benn waaye daal di taxaw ne ko yonent yàlla ñaanal la nit ñi ñàkk taw gi xëpp na ci tàndarma yi lañ doon dund tàndarma yaa ngi dee ngir ngir ñàkk ndox jur gaa ngi dee ci àll bi ngir ñàkk luñ naan ku tukki mar dog la nga deele yonent daal di yëkkati ay loxoom bu daa ñaan taw dafay dëpp tenqali mu jëm suuf mu féetale gannaaw gannaaw gannaaw loxo yi mu féetale ko asamaan mu daal di yëkkati loxoom Abu Talha ne ko sa tàndarma ja nga weeroon nag ca weer waaye bakat kenn wereegu ko mu ne gaawal weer yi yàlla nandalal jaam yi yàlla nandal ñu ba Abu Talha tooy ak tàndarmaam ja ca weeru waayam ba de ab ba talaata ngay xëccoog tàndarma ja ca weeru waay ba taw baa ngi wala ngaan ci kawam de yonent fa mu taxaw fa toog ca mimbaram ba yëkkati loxoom na allahumma asqi biladaka warham ibadaka wansur rahmataka wa ibadakal mayit wàccut mimbar ba lu mooy taw baa ngay wala ngaan ca taw baa ngay wala ngaan ca sikki moom ba de sallallahu alayhi wa sallam benn bés ñaan loo nañ ko taw mu yëg ca mimbar rek toog waxul dara taw bi daal di wàcc de sa ta ta ta ta waaw ci sikki moom ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne su Abu Taalib dundoon tey xolam sedd de moo ana ku may wayal way leen ma Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko da ngaa bëgg ko wax ne waa bi yaday sasxal xamaam bi wajihi simaarul yatama yasmatun lil aramili loolu nga bëgg ko wax mu ne loolu tigi laa bëgg ko wax ba muy gone Abu Taalib baayam moo ko wayoon loolu Abu Taalib ne sama doom ji nga xam ne sang bu weex tàll la te xam ne kanamam rek mën naa tax asamaan si taw de ki nga xam mooy bàyyi jidim ak miskin yi ak yi loolu Abu Taalib ko waxoon ci te booba ndaw la de bi mu toogee nag bi baaw rek ñaanut sax xanaa toog xool asamaan si rek taw bi wàcce mu ne bu Abu Taalib dundoon tey xolam sedd de ndax la waxoon am na ana ku may wayal Abu Taalib ne wa abyada yastasxal xamaam bi way si maalul yataama yasmatun lil araami Abu Taalib bàyyam ma ko doon way way yooyu xasi bayti yooyu ñuy ubbee mawlid dafa wane ne tagg yonente bi sunna la min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdayen ay sa yuxsaful waraqu kooku abbas ibnu abdul mutalib moo ko wax te dafa tagg yonent bi ne ko ndax ma tagg la ma way la yonent ne ko wayal mu daal di sadd bayte yooyu tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi abu taalib ci boppam baayam moo ko ko way li hasan ibnu saabit saaba yëpp tagg nañ ko waaw su fekkoon dara xay na ci bon mu ay leen de sallallahu alayhi ba nga xamee nag ne taw ba taw na dale ci hajjuma ja jam ñaane di taw sebéteetu guddeeg bëccëg ma ngay taw saj saj saj saj saj ba nga xam ne hajjuma ja dee si na yonent yéegaat ca mimbar ba waaja dellu dellu si ne ko ñu ne waaja ñu ne jeneen waay ne ko yonent bi ñaanal yàlla taw yàlla tey taw bi kat musiba am na de arma yaa ngi buut jut gaa ngi lap ci xàll bi kenn de dem marché jëndi loo lekk waxatuma di tukki ndax taw bu bëri bi de yonent ne niir wi demal tegul tegeekul kaw na tabul tegwati ci kawam de niir wane taj lii jëm nii lii jëm nii rek mu daal di sebiti sallallahu alayhi wa sallam suuf daal di naat nag suuf daal di riis bose riine nga gis nag xàll ba naat tóortóor yu weex tóortóor yu son tóortóor yu xonq yépp nga di ko gis mu toroxal hurusu dur ak hurusu yaaxoo de soo séentoo madina de yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma saa ñaan taw rek noonu la taw bay gaawee ñëw sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee nag ne yonent génn na àddina ci jamono Sidina Omar bekkoor dellu ñëw ba nga xam ne raw na sax ba woon ci jamono yonent ba de Sidina Omar taxaw ci mimbar neew yàlla ci sa barke bi bi lañ daa ñaane taw nga di ñu tawal léegi ñi ngi ñaan yàlla ci barkeeb abbas kii nga xam ne bàyyi la ci yonent bi may ñu taw rek abbas daal di ne yow yàlla balaa bu masa a xam bakkaata ko sabab lu ko dara du ko dindi itam lu mooy tuub ñun suñu loxo fees nag bakkaat waaye sëgg nañ fi sa kanam tey ñu ngi tuub de may ñu taw de taw ba taw taw taw taw ba sebeti moo tax foo day gàtt xam-xam yi wax ne jottaliku ci mbindeef ci ñaan daganut dañoo réer rek de daanañ jottaliku ci yonent boo ne yonent moom yonent la keneen du yonent Umar ibnu Xataab kenn raw day moo jottali ko na ci Abbas doomi Abdul Mutalib ki nga xam ne daf ne rek bay tax yonent la sallallahu alayhi wa ba ak si foofu nag ci melal jëmm ji feel jot na ko ci yonent ba nag sallallahu alayhi wa sallam adam mu ne lay taxoo xelonte moom xasani mu jagle ma bi ruyati wajin ci gis kanam mu ne waay lu yonent lu gënoon yonent bi jagle ma ma gis kanamam nga de sallallahu alayhi wa sallam saala dañ na saqaaw te xaadi han kulli man raaw walis képp ku gis na mu ko de kanam gi nga xam ne képp ku ko gis rek te xeyaati dañ na ci dina àddina ak àllaaxira de boo séeréer yu ma lu muy laaj foofu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci nelaw lay ñaanam am jis yonent ca péncam lay ñaan am gis yonent ci lu dul nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wali yàlla yu mat yi danañ ko jis ci lu dul nelaw ak seen bëti bopp ku yu bari dem nañ ba mat mënuñoo gis yonent ci lu dul nelaw ñu taxoo julli ci yonent daf def dog bu rëy ci julli ci yonent ñeen fukki junne par bés wala juróom benn fukki junne ba mujj di gis yonent sallallahu alayhi wa sallam de te ñiy gis yonent ci lu dul nelaw abul abbas almarsi ci la bokkoon ki nga xam ne mooy sëriñi Booseri te taalibe yàgg naa mébét jot ma xamam sëriñam kon nag Booseri xëy na loola doon mébét de bu fekkee ni géwante gis ko la doon mébét yonent na ne ku ma ku géwante gis ma man nga gis ndax man saytaane du meloo sa melo wax na ne ku géwante gis ma xal nga maa gis xal nga koo gis balaa ngaa dee wala xal nga koo gis ëllëg ci àlaxira kon nag lu mën a am daal gis yonent moom xew na ci àddina ñu koy gis ñi ñuy tànqal ak coow lu ko jarut barki démb rek naa gis nañ Mariama ci benn église di ko yéem ñi naa dëgg rek ñii du dëgg xanaa xamuñ na ñun saa yu nañu gis yonent bi sallallahu alayhi te duñ ci soowante sallallahu alayhi wa sallam te moom wootewut ak yàlla jaam rek la boo sey réew ngi laaj fii gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci lu du nelaw te sëriñam Abul yi su fekkoon ne xool naa benn yoon xamtu gisuma yonant dootuma lim sama bopp ci julli ñi de géwénte gis yonant nag mooy karaama gi nga xam ne moo jëkk ku ko yàlla jagle nga xam nga dëxal moos doo génn àddina te gisaatoo ko wala moos da ko gis alaxira te ku ko gis alaxira moom yow sa yoon leer na jeeg de moo tax boo yi di wax ne xelante boog ma gis kanam googu nga xam ne ku ko gis sa texee di dañ na sa texee dañ na ci yow de ma gis ko ci géwént wala ma gis ko ca pénjam yàlla wala ma gis sax ci lu dul nelaw la nga xam ne moom la sëriñam amoon abal abbas al marsi mu sirul aji leer la yaltaqi dana mu daje alkatibata xare ba saaman mbir muy mu ñaakoon de kanam ak yonent gi nga xam ne dafa leer naññ lu xare tat tat nga seen yonent ba rek ma ngay muuñ de sallallahu alayhi wa sallam kanam nga nga leer naññ muy le muy reede lu xare tat tat kanam nga di leer kooku taar bala la waaye lu xare tat tat ma ngay muuñ kooku kay moom jàmbaar gaa ko ko may de sallallahu alayhi wa sallam xameewu dund ba mu taggee kanam ak yonent ga ba daane mu ne aw bi tax bi raatin i ka ji foon tenq wala su fekkee gisuma kanam ga ma foon tenqam la rek sallallahu alayhi wa sallam tenq lan kaana tenq lal nekkoon amul laay ñeel yàlla ba bi ci yàlla ak sa ak lak jàppam wala taaw ak joxeem de tenq la nga xam ne yàlla rek la nekkaloon lépp lu mu joxe yàllaa tax mu joxe ko lépp lu mu téye tax mu téye ko ma ma foon loolu la wax de te taqi dana ragal basa ayu tenq ngoog loo xam ne day buur yépp ci àddina ña ngay parpare lox ngir ragal xayu xare wu jóge ci tenq loole de wa tax saa dana séddoo bil xinaa cim koom min na waaliya tukke ci mayam alfuqara way ñàkk ña waaye miskin yi itam day képp ku may yow keroog nga riis de sallallahu alayhi wa sallam daal di tagg tenqal yonentu ba nag sallallahu alayhi wa sallam ne tenq li nga xam ne ndox ma balloon na ca tenqal yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndox ball na ca mu nandal ca xare ba yépp kooku mooy xare tamboog bi mu mujj xare ji sallallahu alayhi wa sallam ci réew yi tubaab ya tamboog dafa tànga tànga tànga tàng ba nga xam ne makka day glace la boo ko dendalee tamboog yonent dem ci xare nag ci waxtu tàng xare ba fanweeri junne dañu woon nit ñi dañoo mar a mar ba nga xam ne dañuy ñëw di tàggu yonent bi ne ko ñu rey suñuy gëlëm muusu ci sabëri si rek ndax mar wi mu ne jox na leen digal Sidina Omar na lan mu mënuñoo dellu Medina mukk lu moy ci gëlëm yi kon nag suñu rayee gëlëm yi rek duñ ñibbi de ne yonent bu ñu rey gëlëm yi mukk loolu kay bu mu ci bokk mu ne yonent ne ko nañuy def mu ne ko ñaanal ñu yàlla rek mosuñoo taxee di ci sag ñaan boo ñu ñaanalee rek danañ xam lu ñu naan te duñu rey suñu gëlëm yi de yonente ne ndax kenn amu ci dara ci ndox ñu yéene ci xare bi ndax kenn amu dara ci ndox benn waaye indi benn aset bu def tuuti ndox loo xam ne ba mu ca dugalee ténqam la ndox ma sangu sangu sangu ténq la lépp de yonente sa alayhi wasallam mooñ ténq la ba mu tooy ma ngay jéem a nëbb karaama ga de mu bës ténq la rek sew de bal la ca diggante baraamam yi te dee de car car car car mu yéene leen ñëpp ñëw ak seen i mbuus naan be mandi duy seeni mbuus wëgg seeni gélém sangu seeni janaba mu naa seede naa ne yàlla rek ay buur waaye seede naa ne maa yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ndox bal na ci tenq loolu ma ne Moussa ibnu Imran baawaloon na nitam ña yàlla ne ko dóoral sa xet wi ci sa doj wi mu dóor xet wa ca doj wa fukki sew ndek ñaar ballandoo ca doj wa bani Israayila fukki giid ak ñaar lañ giid gu nekk xam seen sew de kenn bokkut ak sa morom sew de loolu day kéemtaan la waaye daal ndox muy ball ci doj googu day bët gis na ko ba tey waaye ndox muy ball ci diggante baaraam diggante yàpp ak sëriñ ak caas ndox ma di ca ball ñu di ko naan loolu day way jëkk ak way mujj kenn musu ko woon nit ñi la mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàndar ma meññ na ci menn xat ci tenqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam sa sabal na ca tenqal yonentu boobu sa alayhi wa sallam saa tab umu mahbat ba wasal nam soow te mës la jur te ma nga làpp ba mën da watti de ba ko yonentu tegee tenqam rek ñu ratt mu mu génne soow gannaaw ga dund na fanweeri at mu jur ak mu ñàkk a jur ayam sooratee rek mu génne soo de salmaanul farisi benn waaye la woon boo xam ne baayam daf doon jaamu xirim bu ko xeebalee na dem jaamu ji xirim ba nag moom mu rem romb benn église benn labbe nga fa booba diine labbe rek mooy diine bu ñëwee rek jadd ca jadd ca labbe ba rek di déglu waat yi labbe bi waat ba ngoon jot mu ñëw mu ne ko foo woon mu ne maa nga woon ca ba di déglu la xebal suñ diine jee gën diine labbe ndax moom ci yàlla lay xoote te ñun ñu ngi jaamu ay doj baay bi wax wax wax wax wax mu taq ci diine rek gëm diine yàlla ba labbe booba dee mu ne ko diine ji ana fu ma ko mën a xameeti boo dee mu xewal ko ca benn dëkk ca mawsal mu dem mawsal ba labbe booba di dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw kooku it xewal ko ci beneen labbe ca xamoriya kooku itam ba muy dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw fu may jëlee diine mu tegtal ko beneen dëkk waaw ca Room naa ko def muy dem kooku moom xuruj jaay ko ne jaamam la ay ni ñu dëkk Medina jënd ko mu ñëw mu ñëw indi ko Medina de te fekk daana dégg nag ci téere yi jëkk yi ñu ne yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te mooy gën ji yonent yi te mooy mujj ak yonent yi dana lekk hadiya du lekk sadax te tampe bi tampe yonent yi ne mooy mujjantal ak yonent yi yàlla tampe na ko ci jokkareem ji rek te ne mooy xaatimul ambiyaay Salman yahut bi ko jënd nag bon lool di ko liggéey lool rek ba jëmmi bés mu ngi ci ma di sàkk benn waaye bàyyi ko ci rek ñëw ci sang bi di waxtaan ak moom ne ko waaye bani xayla te ñoo dof bani xayla te ñooy lansaar maa ngi leen romb ñu nga sënk benn waaye ne yonent bi yàlla la salmaan loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ñëw ne ko nga ne loo wax sang ba dóor comme talaata ne ko demal liggéey li ñuy wax lu jësewoon mu daal di dem liggéey ba wàcc fekk amoon na tamar ma jum denc allahumma salli ala sayyidina muhammadin